ndox mooy nit courant mu coupé sax moo gën ndox mu ñàkk courant mu coupé moo moo gën ndox mu ñàkk ndax ba amulee ndox doo naan doo togg yaa ngi dégg doo sangu di nga xasaw say waa kër xasaw te ñu ngi ne nañu def set boo setulee boo amulee ndox nay sete doo mën a set léegi yéen est-ce que amuleen xel mu ñaaw si ndox mii ñuy naan sax ndoxu citerne est-ce baax na ah bu ñu gis leen ñuy def citernes yi bu baaxulee tamit ñàkk pexel foog ñu naan ko ndax fu mu nekk nii boobu ba léegi robinet yi tëj ñu bu ñu gis lu ñu naan foog ñu naan ko amuñu pexe. ngay bëgg a dee ndax ñu mag di nga naan ndox bu salte boobu bu setee baax na bu setu baax na yàlla xam waaye ñun ah, ah, ñaaw ñu njot waaye tey foog ñu naan ndax ci suñu ñu naan. léegi lan ngeen dox état bi. état bi daan nañu si jàpp ñu mu génnee dugal leen mu jàppale paa yi nga xam ne wàññi na leen comme ni mu ko ñu nekkoon si kii na dugalaat paa yi ñu jàppale doomu aadama yi ñu naan ndox la ñu soxla état bi métti na métti goo xam ne dèjà boo li yóbbu tàngal ngay lekk day yaa ngi dégg métti fu mu nekk ne foo jublu ñu ne déedéet foo jublu nga ñu ne déedéet ah amuñu ndox amuñu lu ñu naan lekku ñu naanuñu nañ ñu dimbale nag état bi nañu si jàppale nañu jàppale te yàlla tax da ngay bëgg a jege sa jëkkër sa te mënoo koo ndax dafa sew leen li neexul. rek la ndox mi fan ngeen ko jëlee. citerne yi. ci citerne moo leen ko andee. waaw citerne ñoo ko fi indi man bu ma man d'accord.